bon je pense que euh, parrainage boo xoolee ñu bari dañ naan sax peut-être wàññi nañ ko mais boo xoolee wàññiwuñ ko certes que présidentielle la mënul bokk ak élection législative mais boo xoolee cota yi en terme d'électorat loolu moo tax li nga doon wut parrainage ci élection législative sax li ngay wut présidentielle moo koy ëpp donc pour man euh, réduction amu ci léegi nag parrainage optionnel bi li nga gis rek mooy ñi fa demoon c'est day day mel ne sax c'est taillé sur xalifa Sall qui a 13 députés par exemple. la la la la limite c'est 13 députés. donc ce qui fait donc day mel ne kon c'est taillé sur mesure pour ñi nga xam ñoo demoon ci dialogue bi léegi nag on peut comprendre euh, parce que ñoom ñoo ko ñoo ko séq ñoo ko waxtaanee donc. ci liñ daan mais ñu ko ñu gars am nga choix. donc mais ñun mais ñun ñu bëgg a def ñun à chaque fois lu ñuy def dañ ciy bëgg a choisir le chemin le plus difficile. Euh, ah parce, que, parce que parce que waaw parce que sëñ Basirou sëñ Basirou Mbacke moo doon wax naan boo jógee boo jëmee ci xàll gis mu def ñaari yoon. neel nee na tànnal yoon wi gën a metti ndax nee na foofu la jariñ li nekk ñun parrainage parrainage citoyen yi moom la ñu bëgg def te actuellement on a mis toutes boo yeneen pour aller defee tamit peut être j'en doute que ngeen réussir quoi parce que amu leen député yu. a tous on ba ñuy dem législative loolu la ñu waxoon du ngeen matal parrainage dans trois dans un mois matal nañ parrainage. c'est 35 000 da jël parrainage jàmbur <laughs>